7h26, euh, mardi 6 euh, septembre 2016. Bonjour et bon réveil. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. On se retrouve comme tous les matins pour Yeewu Leen mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di gërëm euh, ci ànd bi ak Télévision Futur Média 7h26 mooy doog a jot ñu ngi ñu ngi jëm ak yéen 10h30 ni fajar gu jot dañuy njëkkee ak journalu français bi ni bis bu jot dañ ci ànd ak Chérif Dia. Bonjour Chérif. Bonjour Pape, bonjour à tous. Voici le bulletin d'information. d'être avec nous sur Télévision Futur Média. Chérif, nous ouvrons cette page info par les travailleurs de la défunte compagnie euh, aérienne Sénégal Airlines qui ont suspendu leur grève. Euh, une décision prise après leur rencontre avec leur ministre de tutelle Maïmouna Ndoye Seck a promis l'accélération du processus de liquidation de cette défunte compagnie mais aussi le paiement des arriérés de salaire de ses agents, ex-agents. cinq mois d'arriérés de salaire estimés à 700 millions de francs CFA. Nous écoutons Moustapha Diarraté, c'est le porte-parole des ex-grévistes au micro de Mambiram Diouf. Eu, euh, avoir de sa part des éclairages qui nous permettent quand même de voir l'avenir sereinement. Et on est pas, elle a montré euh, une ouverture d'esprit qui permet quand même de vouloir travailler main dans la main avec elle pour que la liquidation ne soit pas comme les liquidations antérieures de sociétés qui ne sont pas totalement liquidées et dont les travailleurs courent toujours il y a plus de 20 ans derrière des indemnités. Euh, donc nous espérons que ce processus va se faire, euh, faire très rapidement et que l'intégralité des droits légaux des travailleurs le seront donnés dans, dans un délai extrêmement court. Concernant l'insertion du personnel dans la nouvelle compagnie, au moins ça, ça a suscité de l'espoir. Euh, par contre, pour les cinq mois, ça a été la déception du personnel, ça il faut le dire, parce que ça a été l'objet de notre combat. Nous, nous n'avons pas voulu que euh, ces cinq mois d'arriérés de salaire soient inclus dans la liquidation. Nous avons voulu qu'on nous les paye parce que ça permettait vraiment de soulager le personnel fortement endetté, de d'éponger ses dettes, de faire face à la tabaski et à l'ouverture des classes et, et, et aux factures, nombreuses factures qui restent euh, Moustapha Diakhaté, porte de ces ex-grévistes. Grosse saisie de drogue par la douane de Saint-Louis. Oui, il s'agit d'une quantité de 133 kg de chanvre indien. Les quatre présumés trafiquants de drogue ont pris la poudre d'escampette. Le chef de division des douanes de Saint-Louis appelle la vigilance. Nous écoutons Ousseinou Faye interrogé par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseinou Diop et Abib Sek. Aux donnée par le directeur général des douanes, nous avons mis un, un système euh, à l'occasion du Magal des, des RAC. Ce dispositif vise à sécuriser la consommation de tous les produits qui, euh, qui arrivent dans la vie des saint mais aussi essayer de barrer à, à, tous les produits contrefaisants et les produits de contrebande. De ce fait, nous avons mis un dispositif et hier nuit, les éléments de la brigade euh, mobile douane de Podor ont intercepté un véhicule. au bord duquel ils ont pu euh, découvrir euh, une importante quantité de charbon indien estimée à 133 kilos pour une valeur euh, estimée à plus de millions. Donc c'est une opération qui est entre dans le cadre du dispositif mis euh, à l'occasion du Magal de Raka. D'autant plus qu'il y a moins de trois semaines, les éléments de la brigade de, du, du, poste de douane de Diamant, toujours euh, c'est saisi, entre dans un dispositif qui est déjà mis en place avec l'autorité euh, douanière. Donc euh, nous, nous saluons euh, la prouesse et le travail remarquable des agents des douanes de toutes les brigades qui sont dans la région de Saint-Louis. Retour sur la victoire de Taxawu Dakar aux élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, la coalition Taxawu Dakar a perdu du terrain, c'est le sentiment de Zahra Iyane Thiam, ministre conseillère du président de la République. Selon elle, la victoire, la coalition commence quand même à perdre du terrain, un sentiment que ne partage pas Banda Diop qui appartient à cette coalition dirigée par le maire de Dakar Khalifa Sall. Selon lui, la victoire est belle et aussi méritée. Al-Hassan L'échec de Dakar ne constitue point une défaite pour la coalition Beno Bok Yakar de la vie de Zahra Yann Thiam. L'enseignement à tirer peut se résumer en deux points. Le premier point, c'est que l'enjeu n'était pas Dakar. puisque sur les 80 sièges qu'il fallait, euh, Dakar ne représentait que 3 sièges. Euh, L'autre élément également, c'est qu'une élection pas se mesurer à l'aune d'un seul département sur 45. Dakar n'est pas à négliger pour toute élection, reconnaît la ministre conseillère du président Sall. Le travail pour la récupération va se poursuivre. Au-delà euh, de la victoire de Ande Dakar d'hier, c'est qu'il y a une nouvelle configuration qui se décide sur Dakar. Taxawu Dakar euh, renforcée par une autre coalition, à savoir celle des libéraux, a beaucoup perdu du terrain. Je suis d'accord avec vous que Dakar est une capitale et pour la symbolique de la chose, il faut nécessairement être majoritaire à Dakar. Nous nous y attelons. Les deux listes en tout cas les plus importantes, c'est-à-dire la coalition And Taxawu Dakar et la coalition Benno Bokk Yakaar toutes les deux coalitions sont de And Tahaou Dakar, parce qu'ils se sont revendiqués de And Tahaou Dakar. Même, euh, j'ai entendu des, des, voix autorisées de la coalition Beno Bokoyakar qui, dit, qui, qui revendiquent leur appartenance à, à And Tahaou Dakar. Peut-être leur démarche a été un peu une démarche singulière. Et quelle analyse faire de la victoire de And Tahaou Dakaru Même des formations politiques qui avaient euh, qui avaient demandé le boycott ont vu de, un de, de leurs militants même conforte, nous conforter au niveau de Tahaou Dakar. Et vous savez, l'analyse de ces élections-là, ce n'est pas l'analyse euh, du, euh, du, de l'écart, c'est l'analyse de la victoire. Une victoire même si c'est une victoire d'un point, c'est une grande victoire. Aujourd'hui, vous allez dans le camp de Tahaou Dakar, je suis sûr qu'ils ont une victoire amère. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Le maire de Padoyer a dit que c'était une victoire étriquée. l'unité Benno Bokk Yaakaar et ànd taxawu Dakar possible et ce pour mieux s'orienter vers les préoccupations des Dakarois puisque les élections sont maintenant derrière nous. Chérif, nous bouclons cette page info avec euh, ce reportage. Oui, un reportage consacré aux laveurs de véhicules avec l'approche de la Tabaski. Leur volume de travail a augmenté. Ces jeunes venus pour la plupart de l'intérieur du pays espèrent ramener dans leurs bagages moutons et habits pour faire plaisir à leurs familles restées au village. Nous suivons ce reportage réalisé par Omar Mamadou Bassou. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À une semaine de la Tabaski, Mohamed et Cheikh, laveurs de véhicules établis à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ont presque doublé leur charge de travail. Nous remercions le bon Dieu avec la Tabaski qui arrive. Nous gagnons un peu plus d'argent par rapport aux périodes on s'en sort vraiment même si nous n'avons pas encore de quoi nous payer un mouton. non xar moom si tu vois que je travaille durant cette période de tabaski c'est pour avoir de quoi payer des habits à mes petits frères et petites sœurs qui sont au village euh, il faut que je trouve de l'argent pour qu'ils puissent porter des habits neufs comme leurs amis là-bas les gens sont encore regardants sur euh, certaines choses. ils sont encore loin de boucler le budget de Mohamed impute la faute à certains propriétaires de véhicules. Certains propriétaires de véhicules ne, ne font pas nos affaires. Il arrive que certains d'entre eux refusent de payer parce qu'ils nous fréquentent depuis longtemps. D'autres nous payent 100 francs ou 200 francs au lieu de payer le prix normal, à savoir 500 francs. Ce chauffeur de taxi s'en défend. Ah, Moi, en tout cas, j'en fais eh, pas partie en cette période où tout le monde prépare la fête de Tabaski ce qui est normal quand tu fais travailler des jeunes c'est de les payer. Malgré tout Mohamed et Cheikh ne désespèrent pas en attendant c'est la course contre la montre pour pouvoir faire face aux dépenses de la Tabaski. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yaoulen, c'est tout de suite avec euh, Pape Cher Diallo. Pape, parlant de Tabaski, j'espère que tu as eu ton ou tes moutons. Pas encore. Il me faut plusieurs moutons. Mmh. Voilà. <laughs> si tu en trouves, tu m'en donnes un alors. De toute façon, nous vous offrons beaucoup de moutons. Vous qui nous regardez ce matin, à tout de suite.

journal ci wolof lay nekk en attendant dañuy jàll ci xibaaru jaww ji alors tey gis ngeen ni euh, démb daanaka après midi bi ba ci guddi gi tàngaay bu tar euh, la ñu seetlu fii ci ndakaaru bëri ngeen euh, comme ñun ñu nelawul big ci guddi normal xam naa ni nawet bi ba tey moo desandi defe naa météo li mu ñu xamal seet nañu ko itam dañu ko seetlu ci fajar gi ndaxte piix mu neex moo daanaka moom ndakaaru ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci boori littoral bi bu ngeen xoolee carte asamaan si sax defe naa on a eu un ciel nuageux et jusqu'à présent euh, météo mu ngi xamal ni on aura un ciel quand même assez nuageux ce qui veut dire que euh, dafa mel ni lu xaw a lëndëm ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen euh, fii ci Ndakaaru waaye di koy firnde rek ni mooy bu ñu moytuwul météo njortees na ay taw en attendant ñu jox leen température yi ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen Ndakaaru quand amul ay coppite yooyu ndax mook Ndar yeewoon nañoo ak température 26 degrés Podor yeewoo ak 27 Matam yeewoo ak 28 degré Linguère yeewu ak 26 degré Diourbel 26 Kaolack 26 euh, Tambacounda 25 degré euh, Kédougou yeewoo ak 24 degré Kolda yeewoo ak 25 degré Ziguinchor yeewoo ak 24 degré météo mu ngi ñu xamal ni itam. ngoon gi thermomètre bi mën naa gën a yéeg ndaxte fi ci Ndakaaru daañu yendoo ak lu toll ci 31 degré Saint-Louis dina yendoo ak lu toll ci 34 degré Podor yendoo ak 39 degré Matam yendoo ak 40 degré Linguère yendu ak température bu toll ci 39 degré Diourbel yendu ak 37 degré Kaolack yendu ak 37 degré euh, Tambacounda yendu ak trent 36 degré bi ju ne bul fàtte ni madras laa sol 36 euh, degré fay nga kilim bi tàngaay bi daf ñu nara a sonal xaw ma foo jëm ak ñun. Euh, Kolda 36 euh, degré Ziguinchor 36 degré et puis euh, jox leen waxtu marée yi marée haute bu njëkk bi. am nañu ko wala daañ ko am bu ca kaname bu 11h40 jotee bi ci topp météo bu ñu ko baaxee xëj na balaa ñu jeexal émission bi ñu baaxee leen ko ñu jox leen marée basse yi bu njëkk bi am nañ ko bi 5h25 jotee dinañu amaat beneen bu 17h45 jotee. voilà heureusement ba Mamadou Ndiaye ñëw na dóoral ma Bijou Ndiaye parce que dafa fàtte ni madras laa sol fay na suñu climatiseur donc je vais je vais la taper vous connaissez taper voilà comme jamais voilà elle sera tapée comme jamais ngeen baal ma dama doon fajaale sama soxla sama soxla en même temps ci météo bi quoi parce que xale bi dafa bëgg dugg samay 18 te c'est pas normal quoi samay caaya la bëgg dugg alors que d'accord ma ci loolu bon euh, c'était une petite parenthèse de defante en attendant xam leen itam ni euh, waxtu yi nga xam ne ñoo gën a baax pour dem yi météo mu ngi ñuy xamal ni mu ngi nekk ci diggante 4 euh, heures 36 minutes jàpp 6 heures 36 maanaam waxtu boobu passé na mais am na itam yeneen moment yoo xamante ni météo prévoir na ko pour nappkat yi ndaxte mu ngi nar nekk ci diggante 16 heures 56 jàpp 18 heures 56 jant bi xëy na tey bi 6h58 jotee euh, dina euh, tëddi euh, tey ci guddi gi bu 19h17 jotee ñu jox leen taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalis yeneen dëkk yi 1 dollar mu ngi toll ci 588 virgule 421 francs CFA 1 euro mu ngi toll ci 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling mu ngi toll ci 784 virgule 0,52 euh, francs CFA 1 yuan chinois virgule mu ngi toll ci 88 virgule 0,844 c'est ça francs CFA donc loolu taux de change bi la woon waxtu julli itam ñu joxaale leen ko en même temps ngeen koy gis euh, ci écran bi suba teel jullee mu ngi toll ci 5h17. tisbaar jullee mu ngi toll ci 13h08 takkusaan mu ngi toll ci 16 timis mu ngi toll ci 19 h mu ngi toll ci 20 waxtu euh, julli yi ci jàngu yi itam dañu leen koy euh, baaxee euh, petit tàllal ma clim bi maa ngi xam s'il te plaît merci beaucoup petit pata donc baal leen ma mbokk yi parenthèse encore de defante euh, cathédrale euh, am na nañu euh, benn messe bi 7 jotee dina amaat beneen messe tay ci ngoon gi bu 18h30 ca martyr de l'Ouganda am na benn messe bi 6h30 dina amaat beneen messe tay ci ngoon gi 18h30 ca église bu Saint-Joseph foofu dina am benn messe tay ci ngoon gi bu 18h30 jotee loolu taux de change bi la woon waxtu julli téléservice bi ak tuuti defanteeg Bijou Ndiaye ñu leen di joxaat beneen téléservice ëllëg euh, ci euh, première partie wala ci waxtu wi nga xam ne nii euh, mooy pàcc bi njëkk ci yeewu leen exactement 7h41 mooy doog a jot maanaam 8h moins 19 dañuy jàll ci yéen kaay yi ak seen i xët ci ndimbalu Chérif Dia normalement dañu ko war a njëkkee ak l'observateur je cherche. parce que yéen kaay yëpp ngi nii tegu sama kanam mais en même temps euh, dañ leen koy euh, tafal ci écran bi ça vous permettra ngeen mën a am aperçu euh, laataa ngeen di génn seeni biir kër yéen kaay yi ak nu ñu xëyee saltan à l'APR loolu mu ngi jëm ci Haut Conseil des collectivités territoriales loolu la ñuy liir Chérif Dia ci xëtu yéenekaay bii di l'Observateur dëggit li ko waral nag Pape mooy ñi nga xamante ne doo ñàkk ci seen i gox ñoo gi gante ku ci nekk naan sa morom moo tax ñu duma leen foofu ba tax na fii ci ndakaaru comme ni ko yéenekaay bi waxee jox na kàddu gi nag euh, secrétaire d'état bi ñu dénk wàllu jokko di communication Yaxam Mbaye moom dal di sànni xeer bu baax Abdoulaye Diouf saar nee na moom Yaxam mbay amul benn responsabilité ci defetu ndakaaru bi ca Foundiougne ñi nga xamante ni ñoom ñoo gañe ñi ngi jàpp ni rek kii di Abdou Latif Coulibaly moom tekkiwul dara ci wàllu politique moom mi nga xamante ne mooy ministre bi nag dafa jàpp ni rek désorganisation maanaam ñàkk organisation foofa ca diwaanu fu Foundiougne moo tax APR mënu fa am ndam ca Ziguinchor Doudou Kane Doudou Ka mi ngi accusé ses frères de partiner ñoom ay warkat lan ñoom ñoo tax tamit ñu daal di leen fay daan Louga moom ñaari camp yi ku ci nekk yaa ngi naan yow yaa gagné bu fekkente ni nag beneen coalition la muy Manko Wattu Sénégal yéen kaay bi tamit delsi na ci ak Mame Biram Diouf mi nga xamante ni bi mu ñàkkee way juróom ca mun na daaw nee na xelam dafa demoon rek ci bàyyi football. mën nañoo wax ni sax élection yooyu lee daanaka prolongation na tey ak yenn kaay yeeg niñ ci xëyee ñoom ñëpp euh, ci ay résultat ak xalaatu euh, kàngam yi nga xam ne ràññee nañu leen ci géew politique bi fii ci Sénégal direct info euh, xëy na tey ak Ousmane Tanor Dia Tanor à la présidence du HCCT les raisons d'un d'un choix. waaw ci choix boobu moom yéen kaay bii di direct info daal di ci ñëwaat bu baax comme ni nga ko waxee rek. wante tamit ñëw na ci parti démocratique sénégalais nga xamante ne jàpp na ni ci lëndëm la nekk ñoom échec bi nag ci élection au conseil des collectivités locales yooyu day gën a rek nërmeelal parti démocratique sénégale muy ay dëmboo jiit mu samp laaj ne ndax ab rebelle la bu fekkee tamit ñu bees ñi la daal jàpp na ni ñoom. mënaguñoo jëriñ parti démocratique sénégalais dara moom yéenekaay bi daal di ciy dellusiwaat ak Serigne Mamour Mbacké. ba tey euh, victoire euh, taxawu Dakar ak euh, ñaandoon nag xalifa Sall moo tax yéenekaay bi di témoin dafa xëy samp ab laaj ci français ñoo ngi liir ci xëtu yéenekaay bi ni quel avenir pour Khalifa Sall. lan mooy ëllëgu Khalifa Sall meeru Dakar jiite woon it coalition taxawu Dakar daal di gagné benn bokk yaakaar fii ci Dakar ci yooyee élection moom yéenekaay bi daal di ci samp ab laaj. jox kàddu gi nag ay borom xam-xam ci wàllu politique ñu ci bëri ñii buñ jàppee ni moom dafa war a jël responsabilité am ber daaray boppam am na ñu ne tamit dafa war a jubóole ak ñi nga xamante ne ñoom la àndoon ci waa coalition taxawu Dakar te ñu mujj a dem ba ñu bekk ci Benno Bokk Yaakaar. awniru xalifa Sall maire bu Dakar ak euh, contrôle Dakar yéen kaay yi ñëwaat nañ ci quotidien par exemple loolee la def ci xëtam tey ñu ngi liir ci français Chérif ni APR contrôle de Dakar après la défaite de Diouf Sarr appel à candidature. moom loolu la ko tuddee ndax bu fekkente ni sax moom Diouf Sarr nee na amul responsabilité ci ñàkk gi ñàkk Ndakaaru ñoom waa APR yooyu ak Benno Bokk Yaakaar. yéen kaay bi delsi na rek ci lan moo tax moom ñu war xëy na seet keneen koo xamante ni mën nañoo jàpp ni ci biir APR dina mën a déggu xalifa Sall bu fekkente ne moom mi nga xamante ni mooy Diouf Sarr nas nay pexe tamit amoon engagement bu am solo ci boobee campagne ci jëmbantal ga ñu daal di koy gagné kon dafa laaj rek APR ñoom it ñu daal di lancé candidature xool ci ñoom kan moo mën jiite Dakar ngir defante xalifa yéen kaay bi di laas dafa xëy seex waxtaan ak Souleymane Ndéné Ndiaye nee ñu il a seen ses vérités noonu lañ ko bindee ci xëtu yéen kaay bi yu bëri yu euh, soxal nit ñi ci réew mi fan yi ci wàllu euh, xibaar politique ak euh, élection yooyu le moom Souleymane Ndéné def cee ñëwaat loolee ñoo ngi koy liir ci xëtu yéen kaay bi di laas. moom nekkoon na fi premier ministre nekk it ki jiite parti bi di UNP moom. jàpp na ni rek ci dëggam yooyu radiation maanaam ni dàqee kii di Sonko c'est inacceptable xel mënu ko nangu loolu Souleymane Ndéné Ndiaye daal di wax nee na moom dafay jàppee boppam rek koo xamante ni daal un mauvais opposant la moom moo ko wax moom ba léegi ci yéenekaay bi bu fekkente ni tamit au conseil des collectivité territoriales yi la moom nee na c'est une institution inutile maanaam amul benn njariñ moom ci gis-gisam moom Souleymane Ndéné Ndiaye yéen kaay bii di euh, direct info euh, xalaatam ci fii parti bii di PDS toll ci wàllu politique tour livre ba la indiwaat tuddee ko aventure ambiguë ñoo ngi ci gis nataalu kii fi nekkoon njiitu réewu Sénégal te jiite PDS ci français ñoo ngi liir ci xët bi Chérif ni li libéraux dans un trou noir. waaw xam naa yéen a kaay bi dafa ñëwaat um, wax nañ ko sànq rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la parti démocratique sénégalais daal di nekk ak échec bi ci élection au conseil collectivité locale ay Aïda Mbodj ak tamit entreprise mu ñim jàppee ni daal. ñoo xamante ni rek uh, ba léegi verrou la boo xamante ni moo tax PDS daal di sauté. ñu jàll ci uh, populaire mi xëy tey ak coowal. li ñu tuddee traque des biens mal mal acquis Robert Bourgi Macky Karim et ses contacts de Paris euh, loolee euh, moo nekk ci euh, xëtu yéenekaay bi. Robert Bourgi mi nag ku ne xam na rek jëflanteem ak njiitu réewu Afrique yu bari ba tax na moom dellusi na rek daal di nettali ay waxtaan yoo xamante ni bi président Macky Sall di doog a ñëw ci nguur gi ñu tase fële ci France visitam bu njëkk foofa. président Macky Sall rek euh, dafa ne woon euh, rek bu fekkente ni Karim Wade nangu naa transiger daal di joxe rek ci koppar yi mu jàpp ni da koo randal mën nañ koo bàyyi Karim Wade tamit daal di tontu yónni ki nga xamante ni mooy Robert Bourgi ne ko soo demee neel président Macky Sall zéro plus zéro égal zéro. foo déggee ARMP sa xel dem ci marché yeeg seen i joxin euh, le libération def ci xëy tey attribution du marché pour euh, l'informatisation des transports terrestres euh, sénégalais annulé ARMP tord le bras à Mansour Eliman Kane. Mansour Eliman Kane jëwriñ ji dénk wàllu dem beeg dikk bi fii ci Sénégal kon rek bu fekkente ni wàllu informatisation la jëm ci dem beeg dikk bi. waa ARMP danoo weñ loxoom ndax jëwlin ji la mu bëggoon mu jul am muy décision boo xamante ni daal commencé na di indi ay coow ci kër jëwlin jooju yéen kaay bi ñuy xamal ne Manuel Valls di premier ministre bu France ñu ngi koy xaar fii Sénégal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre. voilà rappelé que euh, euh, président tamit am na jotaay bu mag boo xamante ni invité nañ ko fa xam naa bu ca kanamee dinañ ci waxtaan soo saboté tes vacances citoyennes dina loolu ñoo ngi koy liir ci xëtu yéen kaay bii di évidence loolu président ko wax paraît-il Maria Moussa. Mariama Sarr kon dafa dellusiwaat rek ci jafe-jafe amoon ci vacances citoyennes ni gis ngeen sax Mame Mbaye Niang ba mu demee ca Kaolack jooroon nañ ko fay diggante gonay APR yi ak jëwlin ji bu fekkente ni nag buñ sukkandiku ci yéenekaay bi moom président Macky Sall dafa jàppale woon jëwlin ñoom ji dénk ndaw ñi di Mame Mbaye Niang ne Mariama Sarr bu fekkente ni da ngaa saboté vacances euh, citoyennes yi di nga xam dellusiwaat na ci moom yéen kaay bi maanaam tëkku gi président tëkku Mariama Sarr. moo tax it tey ci suba man tamit defante ak Bijou Ndiaye laa xëyee et euh, quand je parle de defante Chérif je sais pas si tu te rappelles ou pas euh, Youssou Ndour bu yàgg xuloo bi est-ce que tu te rappelles de ça. Mhm. je muy dugg si ci plateau bi. je vois dans le journal selon journal bi ni président xaw na defante tuuti ak Maria. Mariama Sarr donc ce qui m'inspire un peu te kat man laajaguma kii di wax nii de ba tey laajaguma ko dara laajaguma mooy Mbaye Dieye Faye quoi xëy na xam na après laajaguma ko <laughs> nuyooguma ko maa ngi expliquer sama inspiration sama état d'esprit sama état d'âme li ma bëgg def mu ci dugal làmminam c'est grave c'est grave en télé bi dix baaraam lañ fi ñëwee ñoom bu ñu fi defee un mois am lu toll ak deux mille cinq cent baaraam mais xuloo bi ak defante bi ça me rappelle cette chanson de Youssou Ndour tu te rappelles non wow, je pense qu'on peut écouter ça ensemble D'accord. même si euh, déontologie permettre la nga commentaire ci peut-être euh, mën nañ ko teg feccandoo ko sans pour autant caméra bi wane ñu ah <laughs> ça nous rappelle beaucoup de souvenirs xuloo bi ñuy inspiré ñu xool sama ponto ndax du sa morom man sa jëkkër laa boo dee ni sa morom yow ah yow itam nag loolu du sa rux ak li ma la defal yow seet nga a ah, man maa la defal ah, dinaa la faj te sama loxo du la laal toppal foofu yow waxal la dese ah, ma lay bëgg da nga raam au contraire yow yaa ma toppal Everybody knows. ak ñi la bëgg bari na yow wax ngaa wax ba wow koŋ demal yaf lu ji fii maa fii doogal góor ful la lii laa bëgg ci góor góor loolu lay doxal jigéen sëy ku xam ni danga yor sa làmmiñ di xaste loolu du ngóore waaw góor nag xam war bu ko ta bari waaye bàyyi xaste yi nag yow mënuloo wax ba jiital man jàmbar dong fii maa fi doon ma tooñ man sama yaay booy man moo ma dugal xam ngeen lan la man maa ngay dem seen problème neexut a réglé bu ngeen tëddee waxtaan leen te jéem a jubóo dem naa de say liggéey liggéey moo ma doogoon nit du ma doon jabar loolu yëngalu ma ndax man de woo jeeg loolu resuma ko sama magi baay moom moo tooñ man sama yaay booy man moo ma dugal bon man dafa mel ni clip bi musuma koo seetaan parce que li ma mujjee gis musuma koo gis ça j'avais jamais vu ah lii mosuma koo gis. je pensais que fu ñuy jubóowee ci biir kër gi lay jeexee. oui moi j'avais j'avais jamais vu ça lii moom. lii moom kii moo ko ci yokk Pape Samba. lii moom mosuma koo mos mosuma ko woon gis. Pape Samba moo ko si yokk. ndeysaan uy Alfie. gisoo mburu bi mu gàddu bi muy ñëw yow tam li ma wax ci du Ndiaye rek moom laa koy wax cinq baaraam nga fi indaal ba léegi mën nañoo tontu ñame nañoo bann baraj ñame nañoo bucc buccee ak bann bannee ak bënn bënnee allez c'est bien kanam gi waaw Pape mosoo koo gis gis nga ko tey nag <laughs> ma defaral la pain Sofia. suur naa. <laughs> loo am loo wax soxol bi nga ko tibbee parce que da ngaa garaaw Alphie ndekete. <laughs> loolu ça nous rappelle beaucoup de souvenirs ay Aïda Patra ci tuutee <laughs> temps bi Aïda Patra miss ah. la woon à l'époque euh, ça nous rappelle beaucoup de donc xuloo bi euh, xuloo euh, président ak Mariama Sarr bi ñu gis euh, ci journal bi teg ci ma defante ak bijou ci fajar gi loolu moo ma inspiré malheureusement. on a envie de passer un message de mauvaise nouvelle euh, jëm ci euh, suñu collègue euh, Faty jien Chérif muy génnuk àddina sërëm bi di Amilo Dieng alors Amilo Dieng pourquoi on parle d'elle à chaque fois télé bi dem Touba moom dafa bokk mu Ndiaye da nga ci xam dara ok àggali on chaque fois que télé bi dem Touba Euh, moom euh, dafay bokk ci ñi nga xamante ni ñooy toppatoo équipe yi nga xamante ni ñooy dem foofu. Mm-hmm. Euh, muy lu am solo Fati Pape ni nga ko waxee noonu la moo tax xibaar bi xibaar bu tiis la moom nag dafa ci benn accident la ñàkkee bakkanam doon dem ci benn xew mooy accident bi leen fi doon wax dimanche. muy koo xamante ni soxna su baax la bu dee fekkante ni waa télé bi moom depuis 2010 bi ñu dem Touba ba léegi nañ ndax lépp lu fay teraanga. moom moo ñu koy indil añ reer ndekki di ko indi te dal ba mu nekkoon ak ñun fi nekkoon dafa sori ak xat-xatu Touba mais tërëwut elle faisait tout pour ñu mën a jot ci berndeel yi nga xamante ni ñun moom lañ ko moo tax télé bi équipe bi ñëpp ko xamoon muy amiloo Dieng mi nga xamante ni gis ngeen ko muy soxna su baax xol bi rafet moo mag moo mag waaw moo mag Fati moom moo mag am ay amoon na fanweeri at ak lu topp muy loo xamante ni lu doy waar la bi ñu ko déggee ba léegi démb sax am na délégation bu fa demoon Pape Samba jiite ko ngir rek ñoom ñëpp xam ko muy loo xamante ni tiis na tiis woowu suñ bopp lañ koy njëkk jaal dèjà bala ñu ko jaal Faty ndax liñ seqoon ak moom ndax suñ jigéen la woon muy ku baax ñu koy jaal tamit famille bi yëpp nekk ci Daaru Xudoos ca Touba ban na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana woyofal suuf si ko moom ñi nga xamante ñoo àndoon di rekk ca oto ba daal di ñàkk seen bakkan di ko jaal également Faty di ko masoo parce que lu metti la drame familial la ndax accident moom tas yaakaar la mais yàlla ak Serigne Touba mi nga xamante ni moom lañ yaakaar yàlla na nañ yàlla gàttandu ci aljana yi gën a koy dina dinañu manqué trop parce que suñ jigéen la woon c'est c'est c'est triste quoi mënuñu mënuñu si sori foofu la ñu mën a yem quoi. voilà donc moom mu ngi tudd euh, Amilo Dia. Euh, bokk ak euh, Faty Dieng di fii ci euh, télé bi donc fu télé bi demee Touba moom mooy gën a jàpp ci bernde yi mu bokk ci accident bu métti boobu amoon diggante Louga ak Touba c'est ça. Mm-hmm. ci la génne àddina donc ñun ñëpp ñu ngi masaw njabootu ñoom Faty Dieng yëpp après la vie elle continue yàlla na ko Serigne ba taxawu parce que ñoom dañu bokk bu baax ci njabootu Cheikhul Khadim. Mm-hmm. preuve gis ngeen ko saa yu màggal Touba jotee gis ngeen ci taxawaayu Faty Dieng plateau spéciale yi. Mhm. di expliquer euh, nu mu demeek ñoom seen donc loolu euh, moo taxoon ñu ni tam ci euh, fajar gi ñu ne rek dinañu partager wala bokk naqar bi ak njabootu Faty Dieng di journaliste fii ci télévision Futur Média ki nag sëram la balaa ngeen di juum ci bind yeeg wax yi mook Faty ñoo bokk muy magam. Euh, moom moo génn àddina voilà donc loolu on tenait absolument à préciser jërëjëf Chérif 7 euh, mooy euh, doog jot fileeg ay minutes ñu àndaat ak yow ci beneen journal en attendant ñu fàttali leen ni li ñu leen di préparer bëri na tey ci bis bi dinañu xool li xew bitim réew et puis mardi li ma jaaxal ci mar mardi mooy lundi les gens ne supportent pas mercredi c'est pour les enfants Euh, jeudi mooy loolu mais mardi moom amul bay rek mardi mardi dafa neutre amul amul njëriñ ah. fi mu la lan moo tax. dafa nekk entre lundi ak mercredi ku ci nekk am lu fort looy représenté. c'est grave ah c'est grave ah pour c'est grave pour mardi c'est grave pour mardi alors ci kanam dinañu am astuce de maman ak bijou si. alors astuce de maman ce sera demain Pape Cheikh incha allah tey dañuy wax li jëm ci people ak tamit info international. oui mm. on a failli louper l'anniversaire de Beyoncé. Exactement, ouais. pour fêter 35 ans. Ah oui, ah oui, on a failli louper ça. Donc, Et on puis... va tout à l'heure. <coughs> wax ci euh, tey people euh, yi presque États-Unis kese lay nekk parce que dinañ wax ci Lil Wayne. Mm. Euh, Chris Brown et euh, Drake ak Rihanna. voilà et puis actualité internationale ba tey ak moom du Ndiaye aussi on parlera entre autres euh, day xew ca bitim réew Sénégal dem euh, fekkee sommet G20. waaw Sénégal fekkee sommet G20 tamit euh, dinañ tamit waxtaan ak Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew actualité nationale bi ñoom tamit dinañ intéressé dañuy regroupé wu ñoom à chaque fois di développer di waxtaan. di indi ay xibaar di joxe ay eh, yoon solution yoo xamante ni Sénégal mën na fa jaar ba émerger comme ni ñu koy waxee. Mhm. voilà ce sera pour tout à l'heure Merry Beye Diouf tam dinañu rejoindre ci plateau bi ak yeneen surprise yoo xamante ni daf leen di xaar al qu'est-ce qu'on mangera. Euh, Pape Cheikh bonjour ça sera une euh, recette sucrée mu nekk benn euh, cake flan une recette fusionnelle nga xamante ni dafa tendance trop léegi ci cuisine en matière de cuisine nga jël ñaari recette def ko ci benn donc tey day nekk cake ak ñu boole ko xool lan lay joxe toujours avec les boursofia ci kanam bu ñu ko teelee enfourné rek Pape dinañ ak flan la ñuy boole et puis dinañu àndandoo ak waa Olympique Club dans quelques minutes euh, Alfi la fekk encore ci jardin wu yeewu leen 7h59 je pense qu'il ne reste que quelques secondes pour ñu àndandoo waat ak Chérif Dia ci beneen fàttali leen itam mën ngeen a bokk ci émission bi ci téléphone yi nga xam ne léegi ñu affiché ko euh, ci suufu écran bi tabaski ngi waaj a ñëw c'est juste dans euh, quelques jours nii ngeen mën a daas fanaanal pour bokk Euh, ci ñi nga xamante ni dañ leen di may ay xaru euh, tabaski alors xar yooyu nag euh, dañ leen koy baaxee bu ngeen wootee comme téléphone portable numéro yi ngeen wootee ñun dañu koy am ci ginnaaw ak service à valeur ajoutée huit heures pile ñu jàllaat ci beneen jotaayu xibaar xibaaru bëgg gi dañu koy ibbeek coowal gareewuk ñu doon liggéey ca compagnie aérienne bi di Sénégal Airlines. ni nga ko waxee noonu la Pape ñoom nag dakkal nañ boobee grève la la bin dajee rek ak seen jëwlin mën Maimouna Ndoye Seck soxna si nee na gouvernement bi dina def képp tolluwaay kàttanam ngir gaawal liquidation boobee société nga xamante ne doon yëngatu ci dem ak dikk ñoom nag li leen yoreel ci weer ci salaire toll na ci juróom lim ba toll tamit ci juróom ci ay juróom fukk ak euh, nangam ci ay millions yoo xamante ni. ñoom war nañ koo fay téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay ex travailleurs liggéey fële ca Sénégal Airlines ñu déglu ci Moustapha Diakhaté moom moo seen kàddu ci micro man Birame Diouf. bi comme xam na ne suñu arriéré de salaire euh, mi ngi ci biir moom dina def lépp euh, pour mu gaaw dina si waxtaan sax euh, naataangoom bu nekk ministre justice bi pour que processus bi gaaw boole si mu taf toftal ne tamit beneen jéego bu ñuy def moom mooy compagnie bu bees bi liggéeykatu Sénégal Airlines yi dinañ la ci mën a dugal tam ñoom tamit waaw. waaw lu dal suñu xel gaa gannaaw lu ma waxee ne ne ne ñun arriéré de salaire moo ñu gënaloon parce que arriéré de salaire yi ñun dañoo bare bor personnel bi toog na ñenn ñi toog nañu fukk fukki weer ak juróom ñaari salaire ak genn wàll la am te loolu daa metti donc bor yi da dafa tar bor yi dafa topp nit yi donc ñun lu ñu buggoon mooy loo xam ne day fay fekk ne ñu ñu ñu wàññi suñu ay bor yi maanaam ñu wala ñu effacé ko def tabaski ba noppi sànjaafu ouverture des classes waxuñ ma na nag facture yi nga xam ne ndox ak électricité mi ngi taxaw nekk ci taabal yi di xaar. ki ñu doon déglu moo yore kàddu ñi nga xamee ni ñoo sumboon boobu boobule te euh, dakkal ko drogue bu bëri la duwaan teg loxo ca Ndar. lim ba toll na ci téeméer ak fanweer ak ñett ci kilogramme mu yàmba ñoom lañ jàpp nag ci ay samba booy seen ab lim ñoom it toll ci ñeent ñoom gaa yooyu nag bi ñu defee njombali dañoo réer ne mër ci jaww ji gaa yaa leen di wër ngir teg leen loxo. ki nga xamante ne nag moom moo jiite duwaan foofa ca Ndar di Ousseynou fay daal di rek sàkku ci askan wi ñu gën a waggar ngir jàppale leen ci xeex bi ni xeex xeetu sineebar yooyu ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. dañu santoon ñu taxaw taxawaay bu am maana ngir fexe ba lépp luy dugg ci euh, dëkk bi di Ndar ci euh, màggal gi ñu xoolaat ko. ci boobu loolu amee nag agent des douanes yi muy guddi muy bëccëg ñoo ngi ci kaw télé bi ñoo ngi liggéey ñoo ngi ci géej gi ñoo ngi ci dex yi bi loolu amee waa Podor démb ci guddi bi ñuy taxawee def barrage am na oto bu ñu contrôlé bu ñu ko contrôlé fekk nañ ci euh, yamba boo xam chanvre indien moom la ñu woowee yamba ci olof bi ñu ko xayma mat na téeméer ak fanweer ak ñett ci xaalis koppar mu nekk lu ëpp fukki million ci sunu xaalis loolu nag dañ ciy sant di ci gërëm euh, élément douanier yi nekk Podor di góor góorgóorlu guddeeg bëccëg waaye lii itam day nekk loo xam ne ni ci liggéey bu gën a yaatu lañ ko boole ndax euh, weesul ñetti ñetti ñetti ay bés waa jama doyen ñi nekk jama jàppoon nañu fi oto boo xam ne ay médicament ak ay garabu euh, jur la amoon yoo xam baaxul donc loolu day wan rek ne douanier ñoo ngi taxaw guddi ak bëccëg ngir fexe ba lépp loo xam ne ni warul dugg ci dugg du fi dugg ñu ñaan ak population ñu jàppale ñu ndax lépp lu ñu def rek ngir santé population yi la te ñaari raakay tamit événement boo xam ne ni ñëppay ñëw dina am ñoo xam ne ni yéen biñ ci am du sell moo tax dinañ taxaw guddeeg bëccëg ngir fexe ba duñ fi dugal luñ fa dugal mbokk yi ba léegi rek euh, ci wàllu xibaar ci euh, jotaay bile la tey dañuy euh, delluwaat ci élection wu au conseil des collectivités locales ak tax des des collectivités territoriales ak taxawaayu taxawu Dakar. taxawu Dakar di coalition bi Khalifa Sall jiite woon ñoom ñoo gagné ci am nag nekk ministre conseiller fële ca président de la république jàpp ni rek ndam li taxu ko am solo lool ndax rek ñoom waa taxawu Dakar ñi ngi commencé di ñàkk ay voix. muy loo xamante ni Banda Diop bokk ci coalition taxawu Dakar weddi na ko ne ndam moom ndam la rek te ñee dañoo war a tamit respecter victoire boobu ndax ñoom rafetlu nañ ko te tamit lii day wane rek fin jëm ak coalition benn Bokk Yaakaar ci jongante yi ñu dëgmal ñu déglu reportage bi ci Alassane Ba amal ak Jaafara Ba. coalition Benno Bokk Yaakaar nërmeelu ci ndakaaru kii di Zahra Iyane gisu ci ab défaite. njàngat bi mu ciy jëlee nee na mën na ko tënk ci ñaari poñ. ci ñeent fukki gox ak juróom yooyu bu fekkee ne la ëpp euh, daanaka li ñu ci li nga xam ne génn na suñu loxo juróom la wala ak lu teg dañ naan perte ñu jàngat bi si topp tamit également dañ naan Dakar ñetti siis la ci amoon ci euh, juróom-ñetti fukki siis yooyu kon tamit buñ ko seetee ci wàll boobu mënuñu ne dafa am lu ñu ñàkk. Dakar nekk ab gox bu ñu wart négliger ci lu jëm ci wàllu élection kii di ministre conseiller bu njiit réew mi reconnaître li ni mel mu jàpp ne sax liggéey bi dañ ko wëyal ngir fexe ba récupérer zone bi. même bu fekkee ne taxawu Dakar ak ñeneen ñu dolleeku ci ñoom ñoo jël ndam li waaye ñàkk nañu lu bari bari bari ci ñi ñu àndaloon donc ñun loolu lañuy jàpp dañuy jàpp ne Dakar mi ngi soppi kanam. xam nga analyse bi nga war a def mooy. boo seetloo beneen coalition bi ñu tuddee benn bokk yaakaar amul benn responsable dakaar bu APR bu ci ne ña fa nekk ñëpp ci suñu coalition lañ nekkoon donc yaakaar nañu ni ñooñu euh, xëy na dañu leen euh, sol seen xel loo xam ne nekkul. wante léegi ana ban jàngat la ñu mën a def ci victoire bu ànd taxawu Dakaaru. Euh, bi ñuy ñëw nekkee ci ànd taxawu Dakar 2014 dañu amoon ay objectif comment objectifs yooyu mi ngi fi. Euh, soxla yi ñu ngi fi yàlla dimbale nañu ba tey am nañu ñett ñoo xamante ni ñu ngi ñuy représenté ci au conseil boobu nañu ñëwaat dellu si ñu waxtaan. yaakaar nañ ne doole ji dakaarako a ko yor. li ruus si au conseil bi dafa bari lool ndax ku la rawee woon lu tolloog juróom téeméeri conseiller ngeen génn élection juróom ñaar fukk ak juróom rek taqale leen xam nga ne ñoom. ah gañe nañ de waaye gañe bi lewet na seen gémmiñ te wër na ma ne ñu ngi toog di xalaat. boole seen doole diggante Benno Bokk Yaakaar ak ànd taxawu dakaar mën na ne ci loolu ngir fexe ba faj jàngoro yu Dakar waaye di jànkonteel ndax jamono ji mën nañ jàpp ne sax élection yi weesu nañu ba noppi. taxawaayu euh, taxaw dakaar ci élection yooyu lee di Haut Conseil des collectivités territoriales jotaay bi lee euh, Chérif euh, dañu koy jeexal ak reportage bi nga xamee ni ñoo ngi ko jagleel raxaskatu woto yi. waaw tabaski gi nag ñoom daanaka seen affaire mi ngi ciy dox bu baax ñoom jàpp na ni li na raxas ci oto bari nan mu ay horaire ak yu ni mel yoo xamante ni day dox ci biir Ndakaaru ak tamit di daw ci biir réew mi ñoom nag bëgg nañ cee gañ a koppar yu bari yoo xamante ni bu ñu ñibbi dëkk ba mën yóbbaale xar ak sëri ñu ànd ceeg Omar Mamadou Bassoum Mohamed ak Cheikh nekk ay raxaskatu oto fii ci booru aéroport bu Ndakaaru yokkoon nañu bu baax ni ñu doon liggéeyee waajtaay yu tabaski bi moo waral li ni mel. ñoo sant yàlla fii de tane na di nga xëy am loo wàcce waaw tabaski bi nii moom dina xaw a tane mooy tane noor bi quoi. léeg-léeg ñu am dara bu baax non xar moom amaguñ ko moom. waaw affaire yi moom peut-être bu dee man moom amul problème parce que man moom xam naa li nga xam ne moom mooy sama wareef daal mais pour xale yi moom. faaw am nu ma def parce que xale yooyu noonu bu seen morom sooy du ñu rek day am nu muy demee parce que parce que fa dëkk dëkk yooyu noonu moo xaw a doy waar te yéeme na daal. jamono ji amaguñu li ñu doon séntu ci wàccaayu tabaski bi Mohamed jàpp rek ne ñenn ci borom oto yi defuñu li ñu war loog ñoom. raxas bi nii sax moom gaa yi da ngay jëw sax am ñoo xam da nga leen raxasal mais dañuy xaw a bagg seen loxo boo waxee ñun la dëkk bi dafa xaw a métti dafa xaw tar affaire yooyu noonu période tabaski bi am na ñoo xam bu diggee sax. dañu naan ay deux cent franc wala ñu wax la cent franc fompal oto bi dugg na fii génn fii yoo xam ni na ay sul daal. chauffeuru taxi di ci génne boppam. ah man de bokkuma ci xëy na am na ñoo xam dañu fay nekk ak seen i jerbaat ak seen i doom léegi bu ñu leen defaree sama dañuy am lu ñu teg ci loxo bi rek noonu. su fekkee ne li nga li waaj dañu nekk ci waajtaayu Tabaski wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw yu daan seen doole soob soo ñu raxasee ba pare li yoon nga jël li nga war warloo ñoom teg ko ci seen loxo. yëf yi tar lool teewul Mohamed ak Cheikh woy di dundee yaakaar di liggéey bu baax ngir waajal bile féetu tabaski. mbokk yi fii la ñu yam ak yéen ci xibaar yi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média bàyyi leen ak Baye Cheikh Mboye ak yéen seen émission yeewu leen ñu ngi leen di ñaanal yéen du jàmm. jërëjëf euh, Chérif euh, Dia mu nekkoon jotaayu xibaaru suba gi euh, bu njëkk bi sànq lay doog a jeex ci français la woon bi ci toftalu léegi lay doog a jeex ñu àndoon ci ak Chérif Dia dig daje bi ci diggu bëccëg bi lay doon toujours ak rédaction bu télévision Futur Média mën ngeen a yër itam suñu ay xibaar ci www.igfm.sn gis ngeen ko noonu xëy na tey ak li xew démb ca dëkk bu ñu naan Ndar di ñaari rakka yi démb lañ doon amal xew-xew diine boobule di fàttaliku taxawaayu Serigne Bamba Samba euh, ca euh, mairie bu Ndar ci digganteem ak euh, tubaab bi la ca xew yépp nag détail par détail ci image mën ngeen koo fekk ci site internet bi di www.igfm.sn donc Saint-Louis cérémonie des deux raka IGFM mu ngi fa woon bu loolu weesoo dañuy jógee euh, Saint-Louis euh, dem euh, diggante Touba ak Mbacké bu ñu fa demee dañu fa fekk suñu correspondant mi correspondant bi di Mouhamed Jo Diop Mouhamed Jo Diop moo ñu fa teewal di correspondant permanent bu télévision Futur Média foofee di Mbacké Touba ak la ko wër yëpp Mouhamed Jo ñu ngi lay nuyu mbaa jàmm nga fanaane waaw Pape Cheikh jàmm rek ñoo ngi leen di fay di nuyu Sénégal bi yëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay yow itam lu ñu mën a jàpp ci xibaar ci boor boobu la tey ci suba gi. buñ ko tàmbalee comme ni ko Chérif jeexalee moom mooy euh, élection yi ñu doon amal ni ki dimanche di au conseil des collectivités territoriales. Mhm. département bi euh, Benno Bokk Yaakaar mu mujj jël raw gàddu gi ah ak ñetti sièges yi nga xamee ne moom lañ doon pourvoir ci biir département bi. Mhm. ndam li nag yaatu na ndax 61 pour cent des voix la muy euh, ndam loo xam ne yaatu na lool contre 24 pour cent pour la coalition alternative. antibiotique ak euh, bi nga xamee ne kon moom moo jël jël euh, bi moom mooy LDR yeesal ak un virgule six pour cent moom nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañ ndam lii dina ubbi ay perspective ngir élection législative yi ñu jëm euh, fii ak at muy ndam loo xam ne andi na coow également ci biir alliance pour la république pap Pape Cheikh ndax ki nga xam ne moom mooy Omar Ndiaye Angloma di chargé de mission à la présidence de la République nee du ñu nangu kenn aku jóge ci biti ngir euh, récupération victoire bi nga xamee ñoom euh, toog nañ ay at di ko liggéey bu ñu jógee foofu dañuy wax ci euh, beneen ngir Pape Cheikh mooy déguerpissement bu ñu doon amal wala boog di ko waaj amal ci marché gare bu mag ci diwaan bu Touba commerçant yi ñoom ñoo bañ ne loolu duñ ko nangu benn yoon ndax kat autorité municipale yi nekk ci ñoom ñoo leen bëggoon jëlee foofu nga xam ñoom foofu la ñu nekk waaye ñoom nee na duñ ci ànd tey duñ ci ànd suba ba tax na Thierno Fall li nga xamee ne moo yoroon seen kàddu bi nga xamee ne euh, kilifa yi mairie bi ñëw nañ fa ngir jëlee leen fa yëkkati nañ ay kàddu euh, jàkkaarloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité yi waaye tamit ñoo ngi sàkku ngir kilifa yi diine yi nekk ci biir diwaan bu Touba ñu jàpp ci bu baax a baax wax ak ñi nga xamee ne ñoom ñooy kilifa yi yor wàllu municipalité bi ngir ñu teg projet boobu ci suuf Euh, kon euh, Thierno Fall moo yoroon seen kàddu ci gannaaw bi nga xam ne ñoo ngi manifester jàkkaarloog ak kilifa yi nekk ci mairie bu tubaa ñu jeexale peut-être ak fait divers bi Pape ndax euh, am na koo xam ne ci mbiru médicament lañ ko jàppee moom jamono ji dañ ko defeere ci parce bu ba ni ki démb mbir mi nag ni mu moom moo doy waar ba tax na ñu jàpp ki nga xam ne moom mooy seen mbir suñu xaadim yóbbu ko ci fi nga ne moom mooy ndungu siin mbir mi ñii la tëddee ab waaye la bu jóge woon kaw rek ñëw ci diwaan mu Touba ngir ziar si ñëw Pape Cheikh yaram bi di métti mu ne xaaral ma jënd garab ngir euh, mën a euh, faj sama yaram bii di métti ci loolu loolee la fekk benn waay joo xam ne mu ngi jaay garab ci mbedd mi mu jënd fa ay comprimé naan fala faatoo Pape Cheikh loolu mu ngi amoon le premier septembre ci diwaan bu Touba gannaaw loolu nag police bu tubaa ñëw jël si ki nga xam ne moom mooy néew yóbbu ci hôpital la bul Matlabul Fawzayni bu Touba ngir amal autopsie waaye tamit ki jaayoon garab gi moom dañ koo jël rek teg loxo ni ki démb lañ koy doore defee ci parquet bu Diourbel ngir mu wuyu ci li nga xam ne moom mooy euh, délit bi di vente illicite de médicament euh, mooy njaayum garab te euh, amoo ci benn droit loolu lañ koy toppee en attendant résultat autopsie bi génn waaye balaa ñuy xam résultat autopsie bi mhm. commissariat spécial bu diwaan bu Touba ñoom jamono ji ñoo ngi amal ab campagne spéciale ngir xeex li nga xam ne mooy njaayum garab yi ci biir diwaanu Touba. Ah ba tax na ni ci démb am na grossiste boo xam ne teg nañ ko loxo ca marché Ocass bu Touba ba noppi defeere ko parc bu ba ni ci démb également Pape Cheikh. voilà. loolu defe naa defe naa defe naa baax na ci ñu ngi lay gërëm bu baax Mouhamed Jo Diop dañ lay bàyyi nga daw àggali liggéey bi yow côté rédaction nga foofu euh, ca Touba Mbàkke ak li ko wër boo dellusee ci kanam ñu mën a amaat ay yeneen xibaar euh, loolu yéeme na donc nañu moytu di jënd euh, garab yi n'importe où defe naa ci wàllu science souvent ñu jox leen ci ay conseils yoo xamante ni bëgg nañu ngeen taxawoo ko mais faites très attention ci fi ngeen di jëndee ay garab parce que souvent ñu koy jaay ci mbedd yi amuñu dara lu ñu xam ci wàllu médecine Merry Beye Diouf bu ca kanamee dinañu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu jumtukaayu xarala yu bees yi alors tey di nga ñu présenter application boo xamante ni euh, c'est pour transférer ay données Euh, bonjour Pape Cher, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux téléspectateurs. Donc aujourd'hui euh, benn euh, application bu benn jeune sénégalais euh, bu juddoo fii euh, euh, màggee fii def donc moom lañ leen di présenter effectivement benn application bu permettre trans transfert de données la. Mhm. donc dinañ ko découvrir si kanam tuuti mi ngi tudd Charek. Charek Charek oui noonu la ko tuddee ok moom Charek la tudd. Mhm. d'accord on vous présente sa bu ca bu ca kanamee Aïssatou Pay fal ça mon amour. ça va am nañu livre am agenda culturel. waaw on va am nañu film aussi. waaw waaw. tey on va parler de de film Came to You bu Cheikh mm. Anta bu Ousmane William Mbaye def. Mm-hmm. on parlera de de film encore avec. Euh, agenda culturel bi Mama Africa. Mhm. et on parlera de livres comme comme tous les mardis. voilà et puis tey euh, dinañu euh, recevoir benn euh, nawle Alfi moom elle est modèle mannequin defe naa xam nañ ko bu baax muy Koumbel elle viendra nous parler de carrière parce que am na ay affaires yu bëri yu yu yu mu def yu ñu impressionné quand même dernièrement. surtout carrière am bi commencé à l' international Pape parce que souvent mannequin yi fii la ñuy yem mais moom ak béy di ak yeneen mannequin dañu commencé génn Sénégal actuellement di wone seen savoir faire à l' extérieur et ci loolu dañ ciy jot ay trophées donc ci loolu la ñuy nar waxtaan ak donc ci kanam ñu waxtaan ak moom bu leen fàtte téléphone bi ñu ngi leen di xaar et c' est parti euh, pour yeewu gym Alfi la ñuy fekk ci jardin wu yeewu leen ak waa Olympique Club. waaw Pape Cheikh comme chaque koy defee. fii ci jardin yeewu leen ni ñu dem fekk waa olympique club tey euh, coach Mass ñëwaat na moor ak ki nga xamante ni mooy Ngom ndax ñoom ñoo ñuy euh, jagleel li nga xamante ni moom la sunu yaram di soxla donc yëngal yaram yi euh, coach ñu leen di nuyu. ñu ngi di ñu ngi lay fay. naka suba si. sant yàlla tey kuy kuy kuy commencé la ñoom dañ koy pelloo. <laughs> tey est du Ngom mooy commencé sax parce que démb Mor moo commencé. <laughs> tey moom mooy démarré waat donc lan lañuy def même principe que démb moom la ñuy yeggale waaw d'accord muy combat tey boobu lépp rek ñun même ñun ñi dul def sport dinañ ko mën a reprendre suñu kër waaw kon ñu bàyyi leen ak ñi ñuy see ñi ñuy seetaan bu ñu bu ñu bu ñu exercice ba pare dellu si waat ci ci liñ doon def. incha allah ok ok on va poser le tube. chanson numéro 2 c'est calé hein. ok allongé. ok relâché. marcher. ok, course légère. Chanson numéro 2, chanson numéro 2. Attaque 2. Oh. Chanson numéro 2, attaque. numéro 2. Ok, on descend. Ok, c'est bon. Coupe légère. 4, 3, 2, avançons. Encore. Ouvrez les mains. Pousse en arrière. Pousse en avant. Restez talon fesse. relâchez les bras, levez la poitrine, engagez vos abdos. Préparez-vous pour le déplacement latéral. 4, 3, 2, déplacement latéral. Deux pas à gauche, deux pas à droite. Deux pas talon, deux pas talon. Activez les bras, maintenant niveau 2, allongez. Allez, c'est sortir. Vous allez utiliser les pieds. deuxième niveau, deux pas au genou, deux pas au genou. Ok. Repoussez le sol avec la balle du pied. Activez les bras pour définir le rythme. Bien. Encore repoussez le sol. Changez de côté. Les options avec masse. Option numéro 2 avec gomme. Maintenant, troisième niveau, plus bas. gagner le poids des têtes et pieds. On descend, on descend encore. Flexion, extension, une dernière le prenez. On va continuer toujours le travail du corps Donc, c'est la force importante du corps, dans la mesure assure la connexion entre le haut et le bas Donc, toujours travailler debout. Il est plus sur le Vous prenez les deux poignets. Alors, si vous n'avez pas le prix, vous travaillez le poids du corps, d'accord Maintenant, ce qu'on va faire, on va glisser d'un côté et à l'autre, d'accord Alors, le mec qui travaille. Même chose. Encore 4. Encore 3. Deux derniers. La soie. Stop. On va changer de côté. par les jambes. Très bien. Le travail continue chez vous. Faites-le le soir, minimum 3 fois par semaine, maximum 5 fois par semaine. Trouvez au moins des jours de récupération. Olympique de de la part de Mor, Ngom et Mamas Alfi. yóbbal ba ngoog. yeewu Zimbabwe ñu àndoon ci ak euh, waa Olympique Club. dégg nga li ñu tëjee. Euh, ñoo mën nañ ko reprendre ci li nga xamante ne mooy internet bi. YouTube ci replay bi. ngeen mën reprendre reprendre exercice yi après midi midi bi l'idéal fekk naaj bi tëdd donc Baye Cheikh yeewu si ma ko ayca merci beaucoup Alfie euh, kaay fekk si waat yu léegi nii ci plateau bi gërëm bu baax waa Olympique Club je rappelle que ñoom mun ngeen leen fekk euh, ci euh, salle bu mag boobu noonu Mass Mor Koulim Dioum ay coach yu professionnels yoo xamante ni fajar gu jot ñoom ñoo ñuy jox ay exercices yoo xamante ni dafay tax ñu noddanti ñu ay nor-nor 8h26 ba léegi ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 une petite pause. pause et puis on revient. adna bi bépp ngeeñoo yee ko moom ku dul ngeeñoo rek yàq nga ko ah, ah waaw waaw <laughs> waaw. waaw. boo demee nga joxal ma ko sa maam. dégg nga. nga nuyul ma ko. dégg. dégg nga. kon baax na. kon ba suba. eh. kii kan la. kii sunu dëkkandoo bi fii si ginnaaw la rek. ban dëkkandoo. mooy doomu maam Habib. danga koy doxaan yow sama matériel bi ngay doxaane nit buy yewen day yewen ci lu mu moom lii li fi ne moomu leen ko maa ko moom te ay doxaan taxu koo jóg mënuma di leen dundal di leen fay weer bëgg li ma yor ngeen koy doxaane yow mi yaa gën a ñàkk fayda Aziz mi doxaan rek doxaan nga ba doxaan sa geño wuy ma nang ma ko fay ndax matériel bi doxaan taxu koo jóg naa fay jàpp bi di joxe rek ñàkk ngeen fulla ak fayda seen bopp torop xam waay ah ñu day am <laughs> sama xarit bu baax maa ngi ci ni ci laa ne ci ne yow liggéey yow da ngay fo nekkoo fi di fecc nii rek liggéey sa liggéey bi. jox eh, eh, buy dugg day dugg ci lu yoonam ne. lu ma neex laay doo ma fekk sama kanamu njaboot di am dara loo may wax. lu ma neex laay dugg damaa. pool la ñu séq maa ngi ci pool bi. eh sama pool laa ko soxla léegi dematuma sax. léegi ma ni sax fi garab yéen xamu leen ku leen di neexal sax fi garab. déglu ma boo ma ko mënul jox nga jox ma ma yóbbul ko Diop dégg nga lu ma la yëgal fa laa yem na. man Diop safuma waaye yow pucci waaye yow xam. yow daal fexeel ba jóob gën maa nekk bala may sa bala may sa man bala may laa tudd sant caam jóob ana jóob ak bala may sa ana jóob ak bala may sa yow daal fexeel moo xam yaag jóob waaye yow sax sa pool a ngoog eh, pool bi bu mu duggati ci atelier a ah eh, mu ne ko woon yóbbu ca jóob mu ne ko woon ca jóob mu ne ko ca jóob mani pool bi daal suba ca lay nopp. léegi laa ko ba mu fane léegi ma xam ne daal waa police. maa ngi les police et va gendarmerie xam waay yow. Eh, ma yow. soof booy bëgg a dee. ñu naan ma jóob. di xuloo rek baal bi. waay ñii dañuy tàngal sama xol waay. bala bay sa caam sama mag ji. <laughs> naka def ça va bien. caam bawal. bawal. bawal ak bonjour. bawal. ça va bien jour jour. ça va <laughs> naka def. et le travail. ça va bien. ça marche. assis. waaw assis. Ah. toogal bawal. assis. bawal mii laa doon wax. xoolal. dafa dama lay wutal foofu. bàyyi xoolal bàyyi ma ma taxaw. xaaral xaaral ma woo Babacar eh, yow demal ci Babacar Babacaroo joxal ma Assis benn chaise foofu mu indil ma waay abal ma dama am gan <laughs> xaaral rek xaaral sama dëkkandoo bi abal la chaise ay Assis daal waay defal nii ay am caam bët yow caam bokk ñu ndey ak baay rek nga ba ma fàtte dëgg la yaa ngi may nemmeeku. Mhm. di ma dimbali. Mhm. bu fekkoon ñi bokk ñëpp. Mhm. ni la ñu mel. réew mi dox na. waaw. c'est très bien dëgg yàlla mbool. waaw il faut après mbool. ah mbool bawal. mbool bawal. xanaa ak bawal bawal nga. dëgg waaw waaw waaw waaw. dafa jaar léegi sama kër. Ah. ma ne ko nag balaa ngaa dem ma yóbbu la ba sama mag présenté la ko. dëgg la. ma maam Diouf lañ koy wax ca Casablanca di faj bu mu gàccee. dëgg la man nag. bawol bi hmm. lépp luy boutique ci Thiès. waaw mooy borom. dëgg la buumu gàcce buñ fiy faj rek hmm. moo koy faj. ma indi ko nag hmm. pour may ko sama turando. ndax balaa waaw waaw. yaam yaama meen. Eh, eh, ourson Ourson. Oursoumane. son naa ko ba archivé ko waxoon naa la loo ah. kii waaw ah, ah, waaw. <laughs> nga bawal. gis nga diggante ndeng leer. ngeen sirax. ba jaari nduf foofu fii samay xarit bawal bawal ñoo fa dëkk xam naa fa bu baax a baax a baax waaw mbaa wax nga ko position bi ma am ci ci réew mi ah, a bañ ab wax Banka Sabara Ablaye Seye Joor Caam Maam Jaara Caam ay miiru Caam ba ci daaw da mbaw samay xarit lanu mhm. ñoo bokk askanu ñeeño gi duñu ay bala